salam salaam mbokki téléspectateur euh, public SNTV TV ñu ngi leen di nuyu amaat mbégte ñëw ak yéen ci actualité bi nga xamanteni mo gëna fess tay ji euh, di di 1er juillet 2024 Pape Alé nek directeur général de la RTS nommé par Bassirou Diomaye Faye par décret présidentiel mbokki ba légui depuis nomination bi mu ngi jur ciow lu xamanteni ku nek ngay wax sa xalaat rawati nag côté opposition bi ñom ñu ko gisee euh, appréciation bu doy war la bettel la ndaxte teg Ousmane Sonko dafa wootoon lu melni appel à candidature mu nekkon fausse promesse bu Sénégal yi man di notifié mais continue ba tey moom Pape Aly Niang euh, directeur général de la RTS am na yenn décision yoo xamante ni jël na il ci foofu nga xamante la RTS ndaxte day joxe ay note de service ay décision yoo xamante ay abonnement yu muy dal di annulé euh, tey nag ci lii altine bi tey dafa dal di xëyee moom note de service Mon papa Aly Niang moom wax il m'a été donné il m'a été donné de constater que les stages les salaires de mois d'avril et mai 2024 ont été payés sur la base de l'accord d'entreprise signé le 29 mars 2024 par mon prédécesseur kooku Moy Racine Talla mi nekkoon fii dafa da am yenn contrat yi mu signé ci le 29 mars 2024 mu dal di ko fekk moom Pape Alé Niang mu ngi koy rappelé ne cet accord appliqué dans toutes ses clauses aura une incidence financière annuelle de 1 milliard 800 000 francs CFA et un impact de 1 million 350 000 francs sur l'année encore kooku la Pape Alé Niang dal xam ne mooy contrat bi nga xamante ni Racine Talla moo ko dal di defoon te mu doon prédécesseur am euh, ya mbir mi contrat bi dem na am impact financier maanaam dem na ba yokk fu xamante ni euh, ci weer wi euh, alal alal koppar bu takku takku takku ci 1 milliard 800 millions ak euh, ci sax da ci 350 millions Pape aucune couverture budgétaire n'ayant été garantie pour supporter cet impact donc le la xamlé mom Pape l'application de l'accord euh, euh, d'entreprise du 29 mars 2024 est suspendue à l'effet du décret 2024 837 du 27 mars 2024 accordant des avantages financiers à l'éditeur public national de la communication audiovisuelle la RTS que le Pape Alé Niang di xam bon contrat suspendre nañ ko Pape par conséquent euh, à compter de cette fin de mois de juin 2024 les salaires seront traités conformément à l'accord d'entreprise du 25 mars 2005 loolu mu nekkoon accord boo 2005 lañ ko dal di defoon Pape euh, personnel indiwaat na euh, salaire yi ci contrat bi nga signé woon nañ le 25 mars 2025 annulé le 29 mars 2024 bi de am di doon Racine Sintala dal di def mbokk yi loolu moo tax ba ñi nga xamante ni nag ñooy waa euh, RTS personnel bi dal nañ mer bu futtu ñu dal def euh, le collecte des délégués de la RTS convoque tout le personnel à l'assemblée générale d'information le mardi muy suba 2 juillet 2024 à 15h au triangle sud Hors du jour bi nag ñu war a situation de crise la à la RTS mesure impopulaire bi nga la direction générale bu Pape Alé jël pour la baisse des salaires licenciement des contractuels suspension de l'accord d'entreprise baisse des prix euh, des primes de prestation à cent mille francs suppression des fonds euh, communes mu nekk lu xamante ni décision boo xamante ni euh, Pape Alé Niang moo ko dal di jël waaye kii xam xam ne lii kooku mu ngi tudd Mamou Maba Moussa Niang mooy coordonnateur du collège des délégués mbokk yi ba tey ñëwaat ci actualité bi ak changement bi nga xamante ni nouveau régime bi wane nañ ko mooy tey bu ñu demee ci licenciement de pêche licence pêche yi nga xamante ni joxle nañ ko ba tey ñooy wërale ki nga xamante ni moom la prolongation des valides de licence de pêche du premier semestre de l'année 2024 donc je informer que euh, licence les le premier semestre de l'année 2024 initialement fixé du 30 juin 2024 et prolongé jusqu'à 14 juillet 2024 À mon licence une à partir de de 14 juillet 2024 qui est xamante moto amatoo euh, navire bu licence mën japonais donc yow bokkoo ci yu am euh, lu mel judiciaires sénégalaise donc mon école loo xamante bataille mbokk conseil supérieur de la magistrature euh, son président président Bassirou Diama Diakhar Faye article numéro 1 nommé monsieur Mamadou Diop le euh, le nommé secrétaire général du ministère de la justice euh, en désigné Cumultamment avec ses fonctions secrétaire général du conseil supérieur de la magistrature donc mon nomination boo depuis le 27 juin 2024 bataille article 2 ci décret le ministre de la justice garde des et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun à ce qui concerne de l'exécution à présent euh, décret euh, qui sont euh, qui sera publié au journal le au journal officiel mu nekk lu parce que Bassirou Diomaye fait moo def depuis mon amenant monsieur monsieur Mamadou Diop euh, secrétaire général du ministère de ministère de la justice en même temps secrétaire général du conseil supérieur de la magistrature donc yi mo nek lo xamanteni mom mo lo la gën tay ci actualité bi tay altini 1er juillet 2024